Aquaterra, sponsor officiel de votre santé. Ramset Shop est une boutique spécialisée dans la vente de prêt-à-porter tradis modernes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 bu nga ne lan. maa soxna Bator maa dem ñaanal ko ndax xam naa ne danga ko bëgg gis nga man sa xarit la sa géwal laa gis nga bés boo ma toroxalee ci biir góor ñi damay xaru. nga dee. eh. yow naa fekk nga. sunu déception nga bëgg waaye nag du am soxna Bator tey du fanaan si fii si kër gi. yow rek. Eh. tonton man duma sa morom fii ku fii fanaan ak ku fi dul fanaan yow yaa koy wax naka rek yaa yow maar yow nit nga. rek leen. nit nga yow soxna Boto rëy sunu yaay yow keroog bi mu fi ñëw dañ laa gàddu mel ni yor néew moom du fi fanaan. Eh, nga lu ma lay xamal soxla Boto changé na te man xam naa ci dara. da fen. kan mooy fen. xamoo ci dara naa fekk nga. yow nag maar yow ku feebal nga yow. yow ku ma bett nga pour ma waxaat baat ma ma la ko wax. ma bu ma rusul woon suñu ma ma allah. Eh, eh, eh, yow toogal toogal. sëñ bi allah du ma sa morom de. allah. ak ma àll doo bëgg nga déglu ma maar sa mag la mais man sama xarit la xarit nag wolof nee na dina gën ndoomu ndey te tey loolu leer na ma gis nga soxna Bator moom su amoon beneen jëkkër maar dina ci topp di daw te loolu laa koy bañal moo tax ma yóbbu ko ba ci këram yaa may dégg. yow yow yow Buuya est-ce que wax nañ la crimination bi soxna Bator def si kër gi. wax na ma lépp nee na ma changé na tuub na dootu ko defati. yàlla sax moo ñu moom te dañu koy tooñ mu ñuy baal man nag damaa doyal ci wax ji sëkk sëkk sëkk fi mu ne nii moom damay dem noppalu ji est-ce que dégg ma doyal naa ci leer na. buyo est-ce que xam nga leen. Ah. su ma la noqul tey bu subaa dinaa la noq. kan ngay noq. yow man bi billaay dinaa la noq. maa ngi dem dinaa la noq. toogal foofu yow di wax. da nga dul jug biñ fi ñëwee ba tey ñu sànni ñu fii si salle bi teg ñu fi pour lan ñii de dañuy manqué la dong man xaw ma kañ la ñàkk faay dem suñu amina eh yow yaay sëy wala man maay sëy say. bi sama sëy la nag te bëgguma ci benn problème alima mu ngi ne le ma tek, foofu lañ ko teg kenn dugagul ci biir néeg kenn jëlagul benn décision te maa ngi am chance ba léegi nag nañ toog takaar kenn génnaguñu xam nga dama lay xamal tooguma fi di xaar bo ñaké faari man ñak ma faari da ngay jóg dem li jënd ko wala man ma aw nii dem li jënd ko kañ nga manké eh eh eh kay kay kay kay ba dul eh man sét la dé dañ ma indi benn coow fii. ragaluma man dara fi nekk ni sét du bari wax. waaw kay ma bàyyi ma sàngu toog sama toog xaas verdict bi genn man bama ma sama ndey sama baay ba tay musuma gis nii indi sét dala la guñ la sax benen sét ñoo top suñu kaw luy loolu ah mani ni luy dëgg du yoon lii du dëgg du yoon lii moom du dëgg téyel ma nii dafa laañ alima sa papa nee na kër gi bu ko buuse mais dafa li la sa jëkkër wax ay waay da dem bu leer la dem bu leer la dem dama dem bu dem waxu kilifa waxu kilifa waaw la sant foofu laa yem nag dañuy dem fi beneen jëg toog ndax Mar yow laay waxal ndax dangaa bëgg soxna bu doon yegg si ci biir kër gi. ah sëñ bi man de wax dëgg yàlla xaw ma ci dara. <laughs> amul ba damay bëgg a waaru. dangaa bëgg mu yegg si nga ma xaw ma ci dara loolu kay mooy xam naa ci dara dangaa bëgg mu toog ndax soo ko bëggutoon danga naan ma déedéet. loolu ma reetu waaw papa demal ah. bàjjan soxna ba tóor fan lañ koy dugal kër gi amatul chambre bu disponible de bigé te tamit duñ ko duggal ci neegu malal ndax malal daanaka li muy nekk ci kër gi bëriwul lolu kay mënul ko poser problème. papa ba malal lu foog ne dañ ko eh xam nga nak lan moy problème bi instant bi ñu toll amutu ñu droit di xalat li ñuy xalat mën la fi gisul te amu fi sax nak amu fi malal sax xarit la yéen ñaar benn ngeen mais ya, demal nga wax ak mom lolu kay yomb na pa bu ñëk bi nak man ma dugulon sama bàjjen ci kër gi bi pa yow ya ko fi dugalaatal sa bop ba xam nga li ngay def biige biige nee na la soxna Batoor changé na te bu subaa incha allahu rabbi di ngeen ci xam dara. gis nga yow Alima lenn laa la bëgg xamal damaa bëgg nga génn jël say valise ñëw ñu ñibbi dégg nga li ma la Batoor moomu ñu ah fii dinañ la fi bàyyi bu dina torturer pour lan. amaa bëgg ngeen jóg de Iya. Banyak namanya juga. Namanya bisa makasih. Iya, ada buyo. Banyak menaruh untuk tikar gitu. Saya benda besar banget. Duk mama wakla alima kai. Sa papa neena ñu xaar ko. Dama ko kilifa waaw la sant. Man maa la ko ñaan ngir yàlla suba dina ñëw mu régler affaire bi. Toogal xoolal ci man. Alima doo xool ci man. Yow kenn xameewu la wax. Yow ay Alima yee. Ngir yàlla waay ngir yàlla. Ngir yàlla dama la ko ñaan. sa suñu fami gi fi kuy sey ba tas dégg nga li ma la wax demoon nga da ngay der delu si da ngay tok muñ na tok muñ kay kay ma wax la xolal ci man kay dama la ne nga sey sey bi la la wax da ngay tok sey amu dem fenn delu tok na toog ngir yàlla sa papa do wax ñu ngay teggi da ngay tok yow mom moñu alima bo ba legi ma ngi xol nga nek fi na da ngay dem foy def ñu duñ ay jéggu fak man way tok ngay def <laughs> man duma fi tok muñ duma fi toog ñu may rey wala ñuy assassiné ya sama doom soxna batoon daf may rey yow kenn du la rey du batoon ngay séen maar ngay séen ñun ñoo la ko ñaan léegi xoolal ci man man sa bàjjal alima kenn xamee wu la wax ngir yàlla bu soppi sa jikko maa la ko ñaan xoolal ci man xoolal ci man ngir yàlla maa la ko ñaan léegi xam nga wax ji lan la bu la laalee aura affaire à moi du la laal toogal nga dalal sa xel man maa la géré loolu lépp nga ma chérie Marietou léegi nak yow lan nga fas def def ngay tok rek di setan kod ndogalu yalla lan la si jamman man ndogalu yàlla. fippul sa bop au moins sax nga mer ba ma xamne mer nga. kod. loolu yëpp duma ci fekk ku ñëw fii nga may fekk te ku dem fii nga may bàyyi ma xamal la dara koot ku la nax ku ne jàngal na la naxe <sighs> mais nag dinaa xam nan laay doxalee ani Fanta Seydi moom Fanta de ba set bi ñëwee ba léegi laa ko gëj gis. Alima dama ñëwoon pour nga baal ma àq li fi xewoon fàttewuma ci dara te it weddiwuma ci dara dama bëgg rek ñu jàmm war aku jàmbur jàmmal suñu jëkkër bu fekkente ne mën na nekk man nak soxna botor di nga gis ci ma beneen xar kanam bu wuteeg bi woon démb baal ma àq raku jàmbur jàmm rek moo ini indi de jàmm rek la ñu doxale. dëgg ci moom de. yéen te yaatu. Amina lay tàggatoo lekk dem tëddi sa sax mu may xaar ñëwal yow. <laughs> Aujourd'hui, c'est le jour. Je dois briller, épater, éblouir. Ma devise Bien dans ma peau, bien dans ma tête. Ok, je suis prête. C'est parti. Présentation dans 3, 2, 1. Être bien dans sa peau, c'est être bien dans sa tête.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 Aquatera gu ayib ci fer lool si safar si pur si léger Aquaterra disponible en format de 19 litres 10 litres 1 litre 50 60 35 et 25 centilitres Aquaterra moo leen di ñaanal màggalug jàmm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 waaye maar ku leen a sangul sabtaar la la bëgg te ku la yedd lu baax dong la la bëgg maar xanaa xamoo ne góor gi la gën a bëgg jabar yu bari moo la gën a gaaw kon li tubaab yi di wax naan la tes jours sont comptés bàyyi ci xel ah sëriñ bi sëriñ bi yaa ngi may tiital de déedéet

soxna Bator mii ma gis dafay comédie rek man nag la bëgg a nelawal waaye duma ko nangu. Alima xam nga lu ma lay yëgal doomu aadama kenn du ko jugé ci kàddoom mais dangay bàyyi ba mu jëf mhm. nga door réagir. amal patience su ne teg toog di ko xool mooy gën. yoo xanaa déggoo li ma leen wax hmm. sama papa dafay ñëw suba buy dem du ma fi bàyyi loolu la ñuy seet. toque força. doo ñëw lii am am na ba pare dinañ ko gérer ñëwal tëdd yow yaa ma yow yaay man man maay yow yow rek yaa doy si sama njaboot yow sax laa gën a wóolu sama bopp. yaa fan yaay kër gi jaxasoo na yow rek yaa si daan jàppale yaay. Mariette man maa ngi àjjana di la ñaanal. muñal yaay bi lépp dina baax na njaboot gi doon benn doon benn doon benn lan na ci lan lan ngay def sama buntu heure bi mais fanta yow fii lay fanaan yow est ce que ça va ya, yaa ngi xalaat est ce que yow maar gis <laughs> nga boo bëggee foo fanaan nga dem sa ñaari seet yi nga fanaan fa eh fanta xam nga lu mu doon man duma sa morom bul ma fonto yow xam nga ni xëllin loolu bu ma ko defee dina jur coow te nag bugguma indil benn problème ndax dafa guddi ubbil ma bunt bi damay dugg. Eh, 立呢？立。 togn bu ma la mas a nga fayu ko tay dama bëgg nga woon ma xam góor eh xool ma bëgg mu lool yesin. waaw maar fan nga nekkoon. man de damaa damaa biddanti. biddanti ba rate julli fajar. maa ngi jéggalu de waa gisuloo soxna. soxna soxna man. soxna ba tool xanaa. wër naa ko ci kër gi yëpp mënuma fexe ba gis ko.

soxna. yow sagar dañ ñoo la soxna nekkoon ci kër gi la wuyu. man de kii jaaxal na ma yow nooy sëy démb ñu xëy tey nga disparaître nit ñi di la woo téléphone mënoo jël kii ban genre nit la. du xam nga ko genre nit bu kenn warta duggee ci këram la yow yaa des ci batoor ba di ko wër. kii de vrai diablesse la. Badiane. génnoon naa ci kër gi yàlla def ma dellu sewaat bi yoon nag doo am dara lool naqari ndax changé naa te dootuma ci delluwaat li nga fi nekkul rek laay regretté waaye fa nga nekk yàlla na fa sama ñaan fekk ba nga baal ma ci jàmm ak salaam yal na la yàlla dëkk la àjjana ba nga tiim ñu di reetaan bàjjen nga ma bëgg na nga bëggee woon ma reetu ci baax raw ma reetu ci baax ba maar kontaan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 Aquaterra, sponsor officiel de votre santé. Ramset Shop est une boutique spécialisée dans la vente de prêt-à-porter tradis modernes.